Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli noo ay maqaama yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi ay maqaama yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi ay maqaama yalaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billah la alay la ajim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu waa Média SN TV. ñu ngi leen di màggal di nuyu seen directeur général muy Babacar Thiam ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy tatagal di koy jox yéegu waayam di ñaan yal na yàlla defal leen jàmm defal leen sutura ndax duñ ca wéet benn yoon saa yu su ne dañuy ànd ak ñoom di def liggéey bu mucc ayab ayib kon yal na yàlla defal leen jàmm ñuy nuyu nag suñu mbokk internet yi ndax saa yu dañuy bàyyi xel. saay su ne it dañuy déglu ndax naa kii wax kii déglooy mbokkam kon ñu ngi nuyu àddina wérngal kii te soo ñu laajee ci kaw Nabou dañ ko jekku dañ ko laal ci wàllu mystique laal ko ci wàllu xarfaaxu fa maanaam dañ ko jekku ndax li tax man dañ ko jekku man gisu naa ba xool xam ne dañ ko laal ci wàllu mystique te ki ko laal jege na ko trop trop trop c'est que na yoo xam ne boo ci waxee ñu ne mbaadu ancien jëkkër ji mbaadu jëkkër ju boo ne mbaadu ancien jëkkër ji wax dëgg fa neex yàlla wax dëgg fa am na ñoo xamante ne ne à chaque fois rek ñu ngi koy jéem a ndigg sërëxal bëgg di yóbbu ay waxam ay képp ku ay mbokk xam ne dafa feebar te dañ ko laal te dañ ko jekku ci wàllu mystique tax dañ ko suulal liggéey ci bàmmeel ci néew bu bees tàq gémmiñu néew lañ dugal liggéey boobu li tax ñoom diggoon fa liggéey bi Babacar ci wàllu loo xam ne arnaque goo xam ne doon nañ ko ko def bañ mu wax léegi nag gémmiñ googu ñu téye tëddaloon na ko feebar moo tax wax ji bari ci moom te niñ koo laale jekk ko ci wàllu mystique Babacar bëggoon arnaquer alalam bëggoon détourner alalam te fi mu toll defe naa am na lu mu ci jot a xam ndax ñi may waxal ay mboqam xam nañ ne bu baax li may wax ne lu dëggu la képp koo xam ne jege nga ko mën nga koo dimbali nga jàppale ko sinon àddinaam dañ ko yàq àddinaam sinon dañ ko dee détourné dëgg gu neexul wax la ndax mbokki neen ak biir famille loo ci wax wax ca loo xam te doomu jàmbur la mais dañ ko jekku dañ ko laal ci wàllu laal ko ci wàllu baatin kooku di Nabou Dash làmmiñ topp na ko wax ji topp na ko te wax ji jeexagul commencé gul sax ba yegg ndax dina gën a téppatiku ndax luñ ko def la luñ ko def la Babacar ndax man duma dégg nit ñi naan ay di ak laa ak la damay gëstu ba xam yor sama ay xam ba yor sama ay tuur gëstu ba laaj leen bañ jox ma ndigal ma door a génn di wax képp koo xam ne jege nga ko laalax te nga mënal ko ko wutal xar bu wee xaru benn melo nga wër muuma ba gis ko nga joxal ko ko sarax bi ndax sinon Nabou Dash bés bu tëddee feebar wallahi wa rabbul kaaba du gaaw a jógaat mu am ginnaaw lool am ñu yaakaar ci moom kon bu ñu bëggee yàq àddina man ma gis ko man soxna Mariama damaa paar dinaa génn wax ko mais ki koy liggéey jege na ko te góor la du jigéen ante ceeg juróom ñaari sëriñ yoo xam ne dañ ko ci defal wàllu ñaan nañu ba doomu jàmbur bi ñuy liggéey nañ ko ba mu doyeggale ndawam jeune la ay xam ne bés bu ñu ko sàggane ba leneen dal ko am nañ ci part de responsabilité ndax Nabou Dash même bu dul dara avenir la soutien de famille la te mu ngi jàppale ñenn ñi kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax nit ñi nit ñi teg nañ ko bët mais na nëbbatu bu baax a baax te nañ ko jéem a jàppale yóbbu ko ci maama yi ñu faj ko ndax affaire sëriñ ci loolu lañ ko jàppee affaire mystique bu dee bëgg na ñëw toj gàllaaj bi ndax Babacar nañ jënd xaru benn melo xar mu weex tàll ñu jël xar moomu ñaan ci yàlla soxla ñu saraxal ko ko mu pour mu mën a jóg ci wàllu feebaram boobu ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàllaaw Bienvenue sur Salam Vision.